ربي اسرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه خولي السلام عليكم ورحمة الله دائرة المسلمين والمسلمات نولين نيو دين سيارة بي نيب لكم عسي سيبار سيلا أجلينا خمي مو دكي نيب رك نيو دين سيارة di ñaan sunu borom xasa wa yàlla na yàlla nangul nangul leen barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defee ñu ñëwaat tey rek ci sunu téere bi ñuy wax al asmawiyu ñu nekkoon ci buntu baabu juma mooy buntu bu doon wax ci wàllu juma keroog ñu ngi jàngoon ba agsi si wàllu xutba bi fi mu doon waxee nganti juma ñu ñëwoon ba agsi fi mu doon wax naa wa yaxrumu safru inda sawal min yawmal min yawmil jumaat xalaa man tajib alayhi jumaha waaw mu doon wax muy mu ni dana araam si nit ki muy tukki si bisab juma ginaa sawaal si ki nga xam ni ay juma war na ko waaw mu tegoon sa doon wax tamit وكذلك يحرم عليه الكلام والنافلة والإمام يخطب مولو الوقت من دين أرام دين أرام سي كي نك سي بيس سب أجمع دي جولي جي دي جولي سي أجمع دي إمام دي خطبة موي وخ ولو موي نافلة ميانا لول تمن دفع أرام سواء كان في خطبة أولى أو زانيتي foofu la ñu yemoon waaw moo xam xutba bu njëkk ba la wala bu ñaareel ba imaam xasee bay xutba li war mooy nit ki daa war a toog rek déglu xutba bi moo tax mu ni kon imaam buy xutba day araam di fa wax wala di fa naafila loolu daa war ñëw rek toog déglu xutba ba si geeram imaam Maalik kon tey mu ngi wax fan lay commencé moy wax ni wayajil wa rajul wa la rajulu ila an yakun talbaza wa la talbaza bi naflin qabla duqul al imam wa yutima wa yutima zalik wa yutima zalik mu ni tamit dana araam si waaye ji liisu rajul maanaam mu ne dana araam tamit naafila si imam buy xutba mu ni nit ki tamit bu ñëwee fekk imam di di xutba na toog bu mu julli waaw bu mu julli waaw soo defee mu ni ila an yakunu loolu daa nekk ilaan yekkoon dafa nekk tal basam mu doon lamboo mu doon def bi naflin si ay nawaafil xabla du xuulil imaam lu jëkk imaam di dugg ci jàkka ji kon moom nu muy def waaji mu ni fa yutima zalika day mottali naafila googu bi maanaam lu mu bëgg wax maanaam mooy nit ki bu fekkee imaam daay ñëw fekk la ngay naafila imaam dugg si jumaa ji fekk ngay naafila yow moom nooy def mu ne sëg naafila du ak dagga danga koy mottali su ko defee nga daali toog déglu xutba bi waaw mu dellu waxan ni tamit ba tey li araam ci bisab ajjuma bu imaam asee ba toog sa minbar ba mu ni wa yaxrumu dana araam albayu albayu wa shara jënd ak jaay foofu la araame imaam xasee ba toog si min barba mu jënd ak jaay day araam foofu waaw mooy xinda azzaani saani ginnaaw bi ñu noddee nodd ñaareel gi bu ma xasee ba nodd ñaareel gi rek jënd daganul jaay daganul bu jëkkoon booba ñaari nodd daa xew ginnaaw bi dem ba tax ñetti nodd waaye mu boo gisee mu ne a na azzaani zaani mooy dañ daan nodd nodd gu jëkk après nag ginnaaw bi see nodd nodd ñaareel gi nodd ñaareel gi no googu nag mooy xamal nit ñi neen imaam ñëw na mooy imaam toog na si minbar bi su ko defee nag jënd ak foofa lay araame يا أيها الذين آمنوا نقرأ القرآن وها إذا نودي من صلاة يوم الجمعة ما ينادوكوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاصحوا إلى ذكر الله وزروا البيها وزروا البيها سالكم خير لكم إن كنتم تعلمون ودمشق رسالة سرابة لنا الصحابة dañ doon commercé bi ñu commercé di def seen commerce yooyu ñu daal di nag daal di demoon benn dëkk jëndi bagaas si dëkk Màkka yi biñ jëndee bagage fekk booba gaa yi ah ñenn ñi ñoom demuñu ñenn ñaa ngi si jumaa ji bi nga xamante ne si gaa yi jëndi nañ bagage ba ñëw rek dajeenteeg jumaa ji bëgg a taxaw ah imaam bi xutba léegi ba déggee ñu ni marchandise ba ñëw na rek gaay yi daw jëkkante ji marchandise ba léegi nag aaya ba daal di wàcc waaw aaya ba nag ñëw waxal yonent bi alayhi salaatu salaam nag ni ko waxal sa gaa yi nag ni leen fekkee gëm nañu yàlla gëmam yenenteem ah sunu noddatee nodd juma muy nodd kooku imaam tox si minbar bi lépp luy jënd ak jaaye nan ko bàyyi ba julli jumaa bi jeex ñu delluwaat seen it wasarol bay xasaalikum xayrul lakum in kuntum taxlamoon isaa qudiyat salaat fantasiro fil ardi bu demee ba julli gi jeex nag ñu tasaaroo ku ne la nga doon def nga defi ka ki doon jaayi jaayi ki jëndi jëndi kii añi añi kii naan ataay naan ataay waaw foofa daal bu fi njënd ak jaay amee mu ne wooy yuf saxu des na ko firi waaw ah, des na ko firi nag waaw bu fi jënd ak jaay amee daal si ki nga xam ne ay juma war na ko mu ne jaay dañ ko war xàccee waaw wooy yuf saxu des na firi njaay ma in waq xa ndem njaay ma tàbbi na ndem njaay ma am na waaw moo tax mu ni إذا هذا هوني ما نام وحلا من تجيب عليهما الجمعة فإنه يفسخ يفسخ دسنا كفيري أو هذا هو يفسخ دسنا كفيري دين دين خاتين جاي من وقهن دم جاي ما أمنا دم تابين هذا هوني بتاعي wa yukrahu des na sip ah loolu sip ak loolu araam nag bokkul jaay moom dasa araam am na foo xam te min neefi dafay araam waaw waaye nag moo ni wa yukrahu sibeef ne ba tey tarkul amali bàyyi liggéey yow mul juma bisab juma maanaam comme bisab juma rek kenn waru koo liggéey ngeen loolu dañ koo sip wa yukrahu tarku amali yowmul jumuha waaw maanaam ngir nga def ka feet rek ba ni kenn waru see liggéey nee na loolu sim nañ ko lu araam nag moom ak si lu araam waaw yukrahu tarkul amali yowmul jumuha isa tarakahu li ardin taxchimi al yowma waaw ngir li tax nga xëy bàyyi ngir maanaam màggal bis bi waaw ngir eh, màggal bis bi rek nee na loolu tamit am nañu ko sib nee na waxtaan na xulul imaam ne fi imaam ba tey xablal xutbati lu jiitu xutba bi dañ koo sib imaam fa muy xutba mu ñëw di naafila loolu dañ koo sib ko imaam bu ñëwee day dugg rek toog si minbar bi waaye du fa dugg naa day du ñëw si jumaa naa day naafila moo tax mun watan na xulul watan na xulal imaam naafila naafila ak imaam xabla xablal xutba lu jiitu xutba gi dañ koo sib boo ko saa rek nag noonu ba tey siibeef na lil jaali yi ñeel aji jekki ani yatan nafala muy lamboy naafila àndal azaani awali ginnaaw nodd gu jëkk waaw ba tamit nit boo ñëwee ci jumaa tamit bu dee waxtu bu daganu naafila da nga a ñëw julli ñaar rakk waaw bu dee waxtu wax daganu la naafila doo fa naafila da ñëw def sa baaxiyaatu saalihaat après dooro toog waaw mu ne refu sib nan ba tey u shabaab ba teew ndaw ñi xale yu jigéen ñi comme jànq ji waaw jànq ji nee na sib ak gul araam nag waaye dañuy sib jànq ji teew si juma lu ne ragal si loolu nee fitna ngir mu fay indi fitna waaw waaw yukrahu uduru sababati lil jummaha isa lam yaxsha waaw maanaam bu fekkee ni daa ragalul fitna daal ah mu mu ne wa illa walal xaram xuduruha waaw moo tax mu ni yukrahu sib na xuduru sababati teew ak xale sababat xale yu jigéen mooy ndaw ñi jagamaari jigéen ñi lil jumaati ñeel juma am waka naka noonu ba tey tukki tamit ba def fajar ginnaaw fajar maanaam ginnaaw fajar nga tukki sib nan ka jumaa waaye lun sibli waaye ab sidu araam tukki defee bunte bi foofu la jeexe foofu la bunte bi jeexe yal na yàlla defal dégg ak topp ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ñaan ñëpp tawféex yal na yàlla defal ñun ñëpp jàmm ak salaam barakallahu fiikum